mettre là. te jotuñu la. defe naa ni dañuy tànnaat beneen numéro téléphone. kon na ñëpp téye seen i téléphone. parce que loolu mooy règlement bi en fait. waaw ku ñu woo ñetti yoon bu ñu la jotul. dañuy tànnaat keneen. voilà. ay ca yéen ñi mësoon a woote ci teraanga Sénégal boobu ba tey téye leen seen i téléphone ñi ngi ànd ak UC bi pour war a mën a tànn kii gañe kër gi dinañ la jox chance trois fois d'appel suñu la jotul nag. suñu la jotul tànn beneen numéro ah Amina dañoo commencé tirage bu commencé guñu ñu ngi xool numéro téléphone yi <laughs> te seen petit gàlle wala kii Aziz Samb kii mooy wàcc Oscar des vacances. GTT. <laughs> naan Amina cas critique na de. Diorop man maa ngi ne maa ko war a gagné dama stress. man dama xamul lan laay jaabante ni maa gën a stressé. <laughs> te nga dem ne ñetteel leen. voilà nii laa bëggoon ñëw taxaw c'est bon. léegi Amina. waaw. kayit yëpp a ngi nii. leer na. acte de vente beeg titre foncier yi abaa te ñi ngi jàkkaarlook euh, ñi ngi taxaw ak UC bi nii ñoom tàmbali nañ di xool numéro téléphone yi. Ah. donc équipe yu digital Virgo ak huissier de justice bi pour ñu découvrir ban sénégalais moo nar a gagné kër gi nga xamante ni valeur am mu ngi toll ci plus de quarante millions kër gi mu ngi nekk cité Almadies 2. Almadies 2. man attanu ma lii te ma leen jox waaye <laughs> man maa bokkul ci mag man nii. alors bi dafa am mot de dama koy génne voilà numéro téléphone bi moom lañu war a composé Pape. moo njëkk a génn. dinañ ko jox chance trois fois d' appel bu ñu ko jotul xool keneen yàlla nañ ko jot. voilà ay ca Pape mën nga woote. hey. Ah. yàlla buñ ko fekk muy nelaw. numéro bi génn képp ku mës a woote na téye téléphone képp ku mës a woote ci Télanga Sénégal téyel sa téléphone. ndax buñ la woowee ñett yoon buñ la jotul. buñ la jotul tànn keneen. cee kii dañ koy jot dañ koy jot. yàlla bu muy nelaw. E, ñemewu ko. yàlla ko heure bi fekkoon mu teg meew. léegi du seetaan TFM. composé naa numéro bi ma usie bi jox. mën nga laal appel. fii rek laay bës mu dem. waaw ma bës. <laughs> bisimilaay. ma bës ma bësal bisimilaay. bës na. ay mais libre. kan la. kan moo war a gagné au jigéen. wala mag ndaw. ku xees ku ñuul. ku xees ku ñuul. ku dëkk ci ban région ci biir Sénégal. ay waay ku xëy ndekkee lan. ku xëy añee lan. lan la reeree léegi léegi. si lex bi. kii gën la wuy sa manday bi mu xëyee léemu na mais jëlul bu fekkee yaa ngi seetaan TFM décrochel téléphone bi yéen ñi am appel ñëpp décroché ndoo leen xool moo tax teel a tëdd baaxul <laughs> yan saa bu dee tëdd da am bénéfice de fii nag lii nag mooy ci ngay ñàkk xamee non dama dama am lu ma bëgg a wax lu important. valeur Dakar na dort mu ngi doog a feeñ. <laughs> waaye fii la ñuy xam ne dama koy woo deuxième fois mu ngi nii. woowaat nañ ko pour une deuxième fois. ci téléphone silence baaxul. c'est. yow moom ni nga bàyyi silence bis ni ki tey xanaa ay waay kii du tax tegu woon meewam di meew. la ilaha illallah. ay waay te xam naa ku ko soxla la ndeysaan kii de mënoon naan naan ci timis café café bañ a nelaw def naa appel defaat naa appel def naa appel une deuxième fois ça sonne pas encore sonneegul de mais kii lan moo ko def day nelaw 19 étoiles Oh, ku mel ni man la rek du wuyu du wuyu xam naa ñi dul wuyu la ay ay ay ay ay oh. <laughs> mais kër quarante et quelques millions. kër. ñu tiire sa numéro génn. loo xam ni pour nga am ko danga daan kër kër yi bay bëgg a dee pour soo ko am. deuxième tentative. seetaan télé TFM rek am kër. ñu lay woo mënuñu laa jot. mën nañu bàyyi mu sonné ba jeex. <laughs> yaa ngi stressé sax. Euh, jëlul. jëlul euh, def nañ trois appels mais jëlul. léegi dañuy dem euh, jéem a tànn keneen ndax xam naa sûrement dafay nelaw. ayca ñu xoolaat keneen. allez naa xoolal salle bi ñëpp a ngi ah. naan oh. Ah. c'est dommage. parce que deuxième bi aussi sonné wul woon ah woon ñu jox ko dernière chance. ñu jox ko dernière ñu dem troisième appel. waaye Pape Cheikh yaa baax euh, euh, euh, waaye Pape yaa baax yaa bëgg a may kii kër gi <laughs> cee waaye yéen du ngeen yee kii du ngeen waaye du ngeen wax seen waa kër ñu yee fëgg ko kàpp tàppal ko mu jóg na ñëpp wuy seen téléphone ñëpp jóg na ko jëlal sa caabi kër ah, du ngeen yeewante seen biir waaw 2 passe c'est le réseau tantôt sa sonne tantôt sa sonne pas. Pape Cheikh problème bi yëpp yow yaa ko fi indi. ëpp naa wax. yaa fi indi problème bi yëpp ci Sénégal. jërëjëf yaa def yeewu leen ba mu neex la nga arrêté yeewu leen def mi di plus. jërëjëf moo tax kii bu doon yeewu leen la yeewu na bu yàgg. jërëjëf jërëjëf. bi mooy dernière fois bi <laughs> xam nga ne bu doon Pa Mbaye tey heure bi bu day ñëw fii sax ci bunt bi lay teg chaise am di xaar. ñu koy nuyu suñu papa jooju. voilà donc c'est fini. jox nañ ko euh, trois appels yoo xamante et en plus moom dafa coupé en fait. daf ñu raccroché dafa raccroché. Eh. woowaat ko xool woowaat ko Pape. non non non woo nañ ko deux fois troisième fois bi moo def teint teint moo coupé kii am sens. ay waay. dañ def beneen tirage. ay ñu dem ci deuxième tirage bi euh, beneen numéro téléphone ñu xool kooku moom xam naa dinañ ko jot. bàyyi boo demee dafa am ay plénière rek plénière yi woo ko ba sonn mu yaakaar ni plénière la mu coupé ko fekk du plénière kër la. suspense Pape Samba. ayca ñu demaat xool beneen numéro téléphone joxaat kooku euh, euh, chance am UC mi ngi taxaw. curage bi ci kanamu UG la ñu koy defee pour lépp di leer. transparence c'est ñi mës a woote ci euh, début bi yëpp RFM euh, TFM l'Observateur ñëpp ci bokk dañuy wëyal di jaajëfal euh, waa Sonatel Orange Money Jili CSB Ombalico Meuble. beneen numéro génn na. beneen numéro ñu dem Pape. après tirage. je compose directement avec le téléphone portable. seen numéro la. léegi sa numéro ñaata la. non non bokk. non non bokkul. ni. voilà donc composé na mu ngi sone silence silence kii ay dañuy tëdd ku jigéen la de nee na bu ngeen jotee boo nañ ko benn yoon nañ ko woo deuxième fois ko Mariama tëdd na bu yàgg waaye nit ñi xanaa ñëpp am kër ay sato bu ñu gañe woon kër gi maak yow <laughs> ah ça sonne. ñun kay Mariama ñun la waa TFM ñu ngi lay woo rek mënuñu fexe ba jot la man la Pape Cheikh. Amina Poté ak Aba No Stress. bilaay la ñuy jot boobu ba tey doon dimbali ngay mais bu ñu rappeler de parce que ñu ngi def troisième tentative. Mariama dimbali ñu wuyu ñu voilà. troisième et dernière dernière fois Abba bàyyi mademoiselle cadeau bi yaa ngi koy doog gis ah. bàyyi ah! dafa wuyu allo dafa wuyu allo allo allo allo Mariama ñun la waa TFM yeewul yeewul. Mariama jugal. Mariama. tarax laayul rek jug. Mariama. Mariama yeewul ñun la waa TFM Teranga Sénégal dañuy maye kër gi te sa numéro téléphone la jot yeewul wax ak ñun correctement. ah. nee na yeewu la ñun la. ñun. <laughs> Mariama man la Pape Cheikh Diallo. man la Amina Poté. man la Aba No Stress. ñun la ñun. Amina gañe nga euh, kër gi ñu tegoon ci teraanga Sénégal yow yaa am chance gañe ko. Euh, Mariama fan lañ nelawee. Mariama yow fan nga dëkk. waaw ma ni fan nga dëkk. waaw. Castor. Castor la dëkk Castor. c'est juste à côté. yow da nga tëdd nii. xanaa sa néeg amul télé. mën nga koo taal léegi nii pour vérifier gis nga tayal gi ngay def nii ci ku gañe kër. bay tayalul da ngay bay tayalul de kër gi sa sa numéro moo génn doo jóg. doo jóg doo jóg yëngu. bay sekk bay <laughs> ah, ah, ah. bay ñi naxaate ci réew mi bari. il faut mu jóg taal télé mais xam ne suñuy baat. il faut mu taal télé. il faut mu taal télé Mariama taalal sa télé nga mën a seetaan yow yaa gañe kër gi. bay bay ki ndax yaakaarul day gént Mariama géntoo. géntul kay. Mariama géntoo gañe nga kër géntoo. ci yaa ngi dégg Mariama. allo waaw. taal nga télé bi. maa taalal gaaw la bu dee canal. ay RTS. bu dee TNT ñaata la. 6 waaw bu dee TNT 6. mën naa am mu yaakaar ni kii day gént. Mariama. waaw. jàpp nga télé bi. jàpp naa télé bi. yaa ngi ñuy gis yaa ngi ñuy gis ñuy wax ak yow. wuy dina ma. Mariama ana seen waa yi. yee leen yee leen. Mariama ñàkk ñi mën a kottu amuñu mbaam. Mariama yow kër nga gañe yee say mbokk. ma yaa ngi ñuy gis bu gis ngeen ni yow la waxal nii. Mariama yeel seen waa kër ne leen yaa gañe kër gi lii mbaa jàmm la. neel sàccoo ba ñëpp jug. yéen sa papa am nga droit yee sa papa. yaa gañe sa yaay te nga yeewaale sa yaay. yéen ñëpp na ñëpp jug. sa dëkkandoo yi nañ xam ne yaa gañe ci guddi gi. Ah? ah. Mariama. waaw. sant Mariama nan nga sa tur dëgg nan la. Mariama Badji. Mariama Badji dëkk Castor. waaw. yow lan mooy sa liggéey Mariama Badji. man je suis euh, étudiante. d'accord da daan woote ci Teranga Sénégal. waaw dama yan jour nga ci woote.

Euh, waa koñ bi kay ñoo ci des fi ci bundu kër gi yuuxu ci waa koñ bi. <laughs> Mariama neel sàccoo ba ñëpp jóg. ma ay waay ay waay. <laughs> gëm na ko gis. kër gi ñu tegoon. te muy jar 40 millions. yow yaa ko gagné ci teranga Sénégal bravo. ca Mariama. Mariama. Uh-huh. ana seen waa kër yi. suñu waa kër yaa ngi doo ñu paas sa papa. paas ñu sa papa am am sa papa. Ah. an sa papa. an sa yaay. woo ko woo ko dama woo sa yaay. kër doo ko jël di ko jox xale te woo ay waajuram. kër doo ko jox xale te woo sa yaay <laughs> allo. paas ma sax yow sa yaay ke fi boo koy mën nga ko yeewee ñu la neex xët rëkk lu ne kër. Mariama de tubaab la kër mooy genre yooyu nga xam ne c'est ma maison là. Ah? je l'ai gagné à TSM. nee na yaay yuuxu ci biir kër gi. ndeysaan dégguñu ko kay. dégguñu dara. xam naa mu ngi ci biir néeg bi di yuuxu. nee na surprise bi. voilà euh, est-ce que est-ce que est-ce que mën nañ ko woo à partir de la régie. loolu laa xalaat est-ce que ñu jël numéro Mariama. dugal ko ci téléphone bi c'est possible ah, ok ok ok Mariama teel sa téléphone ñu ngi lay dugal en direct. adieu à tout à l'heure bàyyi fan nga jëm ni. Rési. Mariama. ne quitte pas de. ne pas. Mariama bul coupé de. waaye Mariama xalaat seen téléphone bi yow ñaar euh, kër gi ca Castor. Mariama Bati allez on va dañuy raccrocher téléphone portable bi on va t'appeler directement avec le numéro de la télé d'accord voilà je raccroche ce téléphone on va t'appeler directement au niveau de la régie. Mariama Badji Castor. bul nelawaat de. nee na woote na woote waat. voilà ana sa ñoom yaay ñu ngi taxaw. <laughs> ndeysaan ana sa rakk yi ak sa mag yi ñu ngi toog. ndeysaan. am loo rakk ay mag rek nga am. genre yi ni ñu bëree wërsëg. ndeysaan <laughs> allez je raccroche le téléphone on t'appelle avec un autre numéro. dañ ciy dal. voilà. dañuy sangu. dañuy sangu. ñu ngi koy woo. Mané Sadio dañuy sangu. on va l'appeler tout de suite. am Ibrahima yow sangu rek ñi dañuy sangu kër. Ibrahima Eva. Kumba madame Senghor. service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm. luxury bijouterie Baye Khadim Nia donc dans quelques instants ñu woo euh, Mariama. Euh, ayca Amina Aba defe naa Mariama mu ngi ci ligne bi ayca. ayca Mariama yow la ñëpp di déglu allo Mariama. allo oui. voilà. Mariama yeewu na. bravo Mariama. <laughs> Mariama am nga borom kër. non non pas encore. ah bon. waaw. lan mooy sa liggéey. man je suis étudiante. ah ok ok. Ah. da nga luwe wala da nga am kër. damaa luwe ak toute la famille waa. dèjà dèjà macha allah Pape Cheikh. dèjà dafa luwe dafa luwe. dafa luwe ana sa yaay sànq moom laa doon laaj. sama yaay mu ngi fii mu ngi nii toute la famille la. est-ce que dama paas sa yaay. ñu wanaat la villa bi nga xool ko bu baax a baax nga wax ñu ndax da ciy dëkk wala noo koy def da koy loué wala da koy jaay. ah ki ñuy soog a may kër doo ko bàyyi mu consommer këram gi. almadi de neex na ko waaye dañu wax ala kër gaa ngi noonu. xoola xoola Mariama yaa ngi gis. seen douze. waaw waaw man ay. seen douze la lii seen douze la seen douze kër gi ah, nii. waaw. Ah, ah Mariama seen douze kër la. gis nga seen douze kër. Ah. waa Sonatel ak groupe Futurs Médias ñoo la ko may. waaw macha allah. ah je suis kër yi noonu seen waañ bu la neexee togg fa maafe ay lekk joolaa ruuj fa bëgg espace familial baa ngi noonu. ay c'est ay c'est bon. ay bëgg yëpp mën ngeen koo takk ci waañ bi. ay ndeysaan. bilaay Mariama lii kay koo ko joxoon mu ree moom. ndeysaan Mariama ñu xaaxataay yeewu na yeewu na ah yeewu na c'est fini Mariama yeewu na li moom li des ci guddi gi moom xanaa leneen moom mais ki dootul nelaw poté. ah non non vraiment. ana yaayam ana yaayam xam nga yaayam di wax. an sa yaay an sa yaay. waaw yaay mu ngi nii. yaay Mariama. waaw xaaral ma paas leen ko. mais mère ba mère Badji lañ koy wax. mère Badji ah mère Badji mère Badji. mère Badji. allo. waaw yaay. Ah, na ngeen def yaay booy. maa ngi ci jàmm bu yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax mm, léegi man yow mais yow comme kilifa nga man dama lay bàyyi ak kilifa yi. nga waxtaan ak Amina wala nga waxtaan ak ki nga xam ne mooy Pape Cheikh. boo paree nga pass moom ki nga xam ni moo gañe kër gi Mariama en tant xale moo wax ak moom ay waxi xale. mère Badji. <laughs> mère Badji. <laughs> seen kër ngi mel ni lu xewle abaso ñëpp a ngi ree ñëpp xaaxaataay so est-ce que moom bi mu daan woote ci émission bi euh, daan ngeen ko encouragé amoon ngeen yaakaar nii dina gañe xaalis sax bay gañe kër tey waaw très bien ah. olof bi ah, sa olof bi leerul ban làkk nga gën a dégg. Ah, voilà xanaa. man laa dégg. naka. Ah? kontaan nañu. félicitations donc joxaat ñu Mariama comme ça Amina won ko këyitu këram titre foncier bi këyit gi ñu ko jënde ak euh, lépp luy wane ni désormais yéen yéen moom kër gi nga xamante ni moo nekk cité boobu di Almadi 2. waaw ah, allo Pape allo euh, Mariama. oui. kayitu kër gi mi ngi nii lii mooy euh, attestation de vente bi. oui. yaa ngi koy gis. waaw maa ngi koy gis. waaw attestation baa ngi nii waaw euh, titre foncier bi kayitu kër gi mi ngi nii. waaw. facture bi li ñu jëndee kër gi ak fi kër gi jaar ba yegsi ci say loxo moo nekk nii. waaw. plus kër gi lépp lépp lépp mi ngi toll ci 41 euh, millions 933 148 40 40. ay ca Mariama dañuy organiser benn. waaw Baye Cheikh mhm. demal. waaw dañuy organiser benn remise. spéciale waaw ak waa Orange. groupe Sonatel Orange. pour mën ak groupe Futur Média. waaw ak ñun ñi mhm. def délégation.